Bonsoir, euh, cher euh, internautes yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak yéen tey bu ngeen ñu gisee ni ñu taxawee rek ñu xam ne tey euh, ñi ngi fii ci théâtre de verdure li fi indi nag muy Daaray Kocc 2 mu nekk troupe théâtrale bu mag boo xam ne nag tey ci ñooy amal benn dîner de gala dîner de gala bi nag daf koy accompagner ak euh, festival bu mag boo xam ne euh, dañu koy waajal yaakaar na tey bu ñu nee Daaray ci de ñëpp xam seen liggéey bu rafet nga xam ne ñi ngi koy am lu baax ci wàllu théâtre nga ànd ak ñi nga xam ne nag ñooy waa daaray Kocc 2 tey jii nag ñoom ñooy amal euh, dîner de gala ngir waajal festival bi nga xam ne moom la ñuy amal donc loolu moo tax gis ngeen gars yi actuellement ñëw nañ ku ci nekk ñi ngi à table gis ngeen mais aussi gis nañu aussi que ku ci nekk dañu habillé en blanc donc loolu tey yaakaar naa ne euh, bari na ay ndaanaan yu nga xam ne ñoo ngi fi euh, mën naa leen ci wax Lasga tey moom mooy attraction bu yem moo xam muy rab rabee ngeen kontaan bu musique bi ngeen kontaan waaye tamit bu dee théâtre ngeen kontaan donc kon euh, li des ci événement bi bari na lool lu nga xam ne ci kanam tuuti dinañ leen ko présenté ànd ci ak ni ci seen yaram la nekk théâtre ci seen la nga xam ne nag ñoo di waa Daaray Kocc 2 ànd ak ñoom ci événement bi nga xam ne moom la ñuy organiser fii nga xam ne nag nag moom moo di théâtre de verdure Mbàkke ñu ànd ak ñoom kon ci kanam tuuti rek gis ngeen xale yu jigéen ñi ah seexu naa xale yi sañse nañu ñi ngi attablé civilisé man itam gis ngeen ma xaw naa def tuuti plan ngir fekk si leen waaye daal ci kanam tuuti en tout cas dîner bi dina tàmbali ñu ànd ci ak ñi nga xam ne nag ñooy waa daaray Kocc deux kon seexu naa ci kanam tuuti rek ñu àndandoo dundandoo ak li nga xam ne nag moom moo di soirée bi. mbéy kalamba gàtt naa këlamu Sénégal lay jooyloo dafay yomb lool ni gàtt naa këlamu général gàtt naa këlamu yow lay jooyloo jógal général jógal siir di koy jooyloo dafay yomb doon kooku lañu duppee sëriñ xaadim mooy waaw xaadim man de ma xool ci yow soo bëggoon bi deew xaadim ngay li see man tëdd laay fa kaay ñëw xaadim ñëw Sëriñ Fallu boobu dandan lay doon misbaax fallu ñu bu daan fa ñu daan Sëriñ Fallu na la duggee soppeeku wuru sa programme waaye misbaax fallu moom yi may seen misbaax fallu soppeeku woo kaay fallu boobu ni fallu ñu bu daan fa ñu daan ab compétent la nga xam ne loolu la ab compétent. waaye su suñu diggante mën a am cinq ans. bu ñuy xëccoo ne xanaa ku jëm nga doo perte wala ma seexlaan ne xam naa sa yaay jur ba doolo bu ñuy xëccoo ne xanaa ku jëm nga doo perte wala ma seexlaan xam naa sa yaay jur ba doolo man de Seex Lam ma tëddee bàyyi nelaw bu koy bësal liggéeyam man de Seex Lam ma tëddee bàyyi nelaw bu ko kenn yee Seex Lam ma tëddee bàyyi nelaw dama yee ma ko waa léegi fii laay tëddee damay tëdd wàcc mënumaa way te duma way sama waa koñ ñi nga xam ne ginnaaw yàlla bu ñu doonee pare man maa tax barke Cheikhul Khadim parce que dëgg neexul ñii dama naan ñii nañu seeti nañu seeti Basiro ay ci digal la ne kooku soxna mooy yaayam ci digal la ne nañu seeti Basiro ay ci digal la ne tàcculum kooku soxna may yaay ja ci digal la ne nañu seeti bay ba ci digal la ne ndey sa bay ba la mu wàccaay comme ni mu ko defee eh, nga xam ne Ramadan bu jot rek day invité eh, daanaka Sénégal gépp ndax fu doon leen di jógee mu leen di invité këram ci ndaw yi nga xam ne moom lay faral def noonu soo tuddee ndogu yi nag xel day dem ci koor classe bu bàjjiri geeg eh, Cheikh Fall. ñoo xam ne ñoo ragal koor ñoom dañuy daal tàmbalee tiit en tout cas daal ñu ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax a baax. xare de gala bi nga xam ne daaray Koty 2 ñoo koy amal. Euh, waa salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di bëgg ñëpp tey baalu àq ñëpp tey wax ni tey li ma gis. vraiment maa ngi koy doog a gis ndax boo xoolee couleur yi tey jii muy man muy yow muy keneen ak keneen xam nga gars yi jàmm lañ woote. te xam nga ni jàmm ci la lépp xaj. waaw comme que jàmm am na rek yaakaar naa lépp mën naa am. ok loolu waaw blanc bi ngeen def waaw moo symboliser couleur boobu noonu muy blanc. ok lan nga ñu mën a waaw préparé ko ci tous les plans. waaw ñi ngi waaj lép hmm. te yaakaar naa ku fi ñëwaat danga gis lépp loo xam ne soxla nga ko ci aar ak lépp loo xam ne ump na la ci aar ak loo bëgg xam rek yaakaar naa mi ngi ci biir ñu doxañ mi ngi biir daara ko ci dë te yàgg lan ngay wax ndaw yi nga xam ne lan nga leen di wax waaw bañ a yàkkamte rek c'est parce que aar moom euh, patient la laaj nit day xaar ñi nga gis ñoo ngi tudd ñëpp dañ cee ëndaw loolu ñaa ëndaw dañ cee dañ cee nekk ci suuf muy métti ñu koy muñ ba tey yàlla ñu tudd leen kon mënoo tëb tëb rek ñu lay tudd loolu mënta nekk kon il faut que gars yi di xaar tey nag gëstu bu baax nag nangoo xam. pour jeexal lan la ñuy xaar tey. waaw tey sama xol dafa sedd su ma naa daal eh. maanaam waaw ah. nañ ci dem daal man pare naa xam naa ni. Jili Ndiaye sama waaw ci bés bi waaw ngir bés bi rek. waaw ñëw naa ci bés bi las gaa wax ma ko ma ñëw mais li ma si gis daal dal na xel xam naa ne Bawol daal ma ngi dem ci kanam waaw. fi ma leen nag bi ma ñëwee fekk fekk naa fi lu kawe sama njort ndax yaakaar naa lu nit di wax rek lii yenn na maanaa daal ndax liñ gis daal dal na xel xam nañ ne Bawol ngi góorgóorlu ci benn côté te bëgg nañoo dem te ku leen jàpp leen ñu dem ñu am ci kontaan lool nag. Euh, ba léegi rek ñu ngi fii ci euh, fi nga xam ne nag mooy théâtre de verdure ànd ak koo xam ne crème la ci euh, wàllu théâtre muy Baye Djily ñu ràññee ko lool Baye Djily tey lan moo waraloon sa teewaay ci dîner de gala bi. leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa 24 actu di wax na gaa yëpp ah nañu dem ci 24 actu ah. ñoo ngi lay nuyu suma grand yow moom borom baax nga. Ah, waaw ne gis nga de tey moom dañu ñëw ah, teewal bawal ah, teewal théâtre mm-hmm. teewal waa Daaray Kocc 2 mm-hmm. parce que tey théâtre tey moo aaye mm-hmm. ñu bokk ci exemple yi donc kon bu théâtre xewlee dafay yoon di yelle fu nu mën a nekk ñu def déplacement ak dérangement. ñëw teewal le théâtre quoi. lan nga ñu mën a wax euh, ci festival bi ngeen di waajal. waaw ñoo ngi koy waajal bu baax a baax avec impatience parce que kon euh, ni ñu ko waxee rek daara ni Kocc 2 mooy ñun festival bu ñoo ngi ci woo ñëpp di ci woo waa Sénégal gi yëpp ak waa Bawol gi yëpp quoi. parce que affaire bi bawal la xeex bi xeex bi yëpp Bawol la. dafa jot bawal falaay naaw nit ña naaw. te dina am yàggatul incha allah. ok gis nañ ngeen woote daanaka ñëpp wuyu si leen mu mel ni théâtre jamono ji mi ngi dund bu baax. waaw moo ngi dund quoi parce que dañu am mbégte. ndax à l'époque euh, waa Touba lu comprend ñu woon théâtre le maximum bu njëkkoon ñu ñu ko daan def daal médecine waaye léegi macha allah bool-bool yi surtout waa Touba paa yi ak maire yi ñëpp comprendre nañ métier bi ñu def muy le théâtre donc kon dafa neex si ñun ñi nga xam ne day da koy def parce que bu ñu koy def ñoom ñu koy ni consommer le maximum donc dafay am satisfaction bu ngën bu muy def si ñun quoi hmm. Hmm. lan la ñuy xaar ci Baye Djily yàggatul dara incha allah bientôt. tey nag ñu taxaw ak euh, Cheikhouna ñëpp ràññee ko bu kër Baye di toj Cheikhouna sa teewaay. maa ngi siyaare ñëpp man Cheikhouna bu kër Baye. maa ngi siyaare waa 24actu di siyaare waa diine de gala di nuyu ñëpp di leen wax ne ah, xam nga man doyen. dafa am lu tax dafa am lu tax may wax xam nga lan lan moo tax may wax. mooy que ni ah site bi nu mu tuddati. 24 actu ci boppam ñooy site bi nga xamante ne si ñoo lépp per. yor na borom Mbacke Maram Doye. waaw. daaf mi ngi noonu. waaw mais mais mais Kombe Kombe la ñuy waxal ci 24 actu. waaw yéen laay waxal nag benn benn par benn nag laa leen koy jox dégg ngeen. Hmm. di leen seetaan fi nga xamante ne si ne mooy a ah, kii 24 actu yi. Hmm. ngeen dugg abonné. Hmm. abonné tàndeer dégg ngeen. d' accord Wally Seck tuuti rek. asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum Sénégal man Wally Balago Seck. abonné naa ci site bi nga xam ne mooy 24 at yi déggante kese na xul bay loolu leer na ma waxi kese na xul kenn loolu wër na ma 24 at yi leer na ma te biir na ma te wër na ma mooy site bi am bës loolu daa <laughs> te xanaa jënd tàggu ca fii I don't care, you fubale di koy lay defaraat dellu si xel yi raxas xol yi sëriñ ba jël sa laaj ci bàyyi bàyyam nekk la bàyyi ne ko nekk ko jabar la yaay la la jox ko jox ko ko waaye su ba su fu ma man de ne na la wolu ma lu di sama ko ko te mooy mi ko ko mi ko dëkk bi dal bi tax lu bébbi ma la bëgg wala wayu buur wayu nekk dafa tegaloo ma toor sama Yeah.

ñaar nag dafa maa nekk ci mbir mi xam nga lii woon na ko mu ngi li ma naqari conseil bi neex na trop dama lay way ngir fii ngir fii nii li ñu fi dajale lépp li sabab dajal leen yow la barke Cheikhul Khadim dama lay way xoolal boo mayee xaalis barke alxuraan gërëm ma dagg way dem toogiwaat fële man bëgguma ba may way ñu may may xaalis barke sëñ Bamba bëgguma loolu parce que naa ñaanoo gi naa ko daan jël ñaanoo gi naa ko daan jël. dama ne fasu naaru góor yi takk nañu leen man gawar yee ku mënul te nga toogee seex nga digleen digleen digleen dama ne Cheikh Cissé suur kër du la télé feeñi waaw man sa jalamay jooy sa jalama doom jooy seex sa jalamay jooy Cheikh Cissé kun la tuddee ñu ne Serigne Seexoo Gaynde baayu Serigne Mbacke soxna kooku mooy maami Serigne Xaadim kooku mooy maami Serigne Xaadim kooku mooy maami Serigne Moodu Moustapha jañ maami Serigne Axma laay way Seexoo Cissé ngaari ngaari ngar leen dig leen dig leen rek dig leen ma leen ma ne ko gëm yàlla daa gëm ci loo mën a seen waaw Cheikh Cissé gëm nga yàlla nangu yi dogalam naxal ma ki daa daam de gëm yàlla daa ndeysaane coxal ma waaw Cheikh Cissé jóone waaw waay. maamu Mbese yaay. booy du dara. Serigne Ibra Cissé ni woowee sa baay. tey fi. Cissé Mbacke Gaynde Fatma la la tuddee borom naas. ndeysaan. Cheikh Cissé jaami yàlla yi ah! man jënd biiram dégin mi ci Saalum la jàng mi ci poolel. ndeysaan maa lay woyal. ay way daale yaay daale daale yaay su may tudd kër mi xam ngeen ne France Mariama wuyu ma Seex Siise dafa am lu ma bëgg ngeen déglu dama koy seere ci sama xol laa ko tibbee léegi démb laa am problème ba Sëriñ Tuubaa Mbàkke minute bu baax li samay waajur waroon ay waay daale yaay daali daali yaay dër dër dër su may tudd Garmi xam nga ne Seex Sisi mi de Garmi naa laa yëgëree te yëngal moo tax ma yéeg maa ngi ñaan ci barki Serigne Touba ak sa liggéey ndey maam Oumy Cissé mi sa yaay Cheikh Cissé yàlla la yàlla aar ba daluy seede la ci suma nit ñi ma ne xool yàlla ak yow a tax defar. suma nit ñi ma neexoor yàlla ak yow a yaa ma defar ku li koddu ndaw Malick Fatim Dior ku lekk saa yandu mañ koddu gelo ngal Amadou ma xuraja bala ñaan saa xewer fan ma cubbu ma xuraja mboj njaag amar njaag boj waalo waalo bee dafa baax jox ñu këram noonu lu ñu neex lañuy def kii ñun amuñu fayam quoi ñaan suñu baram rek gën ko taxaw gis nga mag la mais wàcci jiite jiite resto bi non mais nag woyof nit du ko def di ko réccu parce que am na ko xam ne la simplicité augmente la valeur de l'homme Cheikh Ibra daf doon wax ne Cheikh Ibra daf doon jàngale si wàllu philosophie mu amee woon benn philosophie mu ne dafa am benn waaye bu ñëw fekk Cheikh Ibra toog am keneen ku toog benn kilifa bu jàpp ne moom am na dayoo ñëw toog fekk ñëpp toog mu taxaw taxaw taxaw fekk kàggu naay gi la bëgg ñu wàcc jox ko mu toog. nit tuut Cheikh Ibrahima moom dafa xam ne kii fii ko tax a jóg mu fettaxu waa ji ne ko jógal may ko mu toog waa ji jóg may ko mu toog nes tuut yàlla def ak baaxoon di traversé di jàll Cheikh Ibrahima joxañ leen ndax gis ngeen baaxoon gi ñu ne ko waaw mu ne aka mën a naaw waaye su bëggee for dina wàcc gis ngeen li mu doon jàngale mooy loo kawe kawe boo bëggee jariñ di nga suufe quoi moom la tubaab bi wax ne la simplicité augmente la valeur de l'homme Cheikh Ibrahima muy andil doomu aadama bi foo ko takk weesu na ko kon Ablaye Gueye wax dëgg yàlla daaree ko ci kontaan nañ ci aussi di la ñaanal suñu borom yokk sa taxawaay mais aussi suñu beneen xarit muy Talla Diouf dafa sonn si suñu ay activité suñu ay affaires yëpp moo koy defar bépp document bu ñu def moom moo koy defar même waxuma sax Touba mais biti biti sax lu lu ñu di defar moo koy defar mais dafa féete ak ñun kon ñuy ñaan suñu borom gën ko taxaw aussi mais di sant euh, euh, sama xarit mais aussi di ko boole si turu groupe bi yëpp mon ami mon frère Badji Li Mbaye vraiment nit bu baax la pour pourquoi ma na nit bu baax la maanaam dafa am lu ñuy wax solidarité dafa am ñoom ci seen compagnie bi. c'est parce que bu ñu leen proposé ne leen dañuy jaaye taabul mooy nit bi njëkk engagé wu ne ñun de waa def-def dañuy jënd taabul muy lu rafet aussi ñuy sa ñu leen di sant bu baax a baax a baax di leen wax ne daal suñu xol daal sedd na trop. si ñoom muy màkkam muy sëñ mooru muy jili muy bayaanu ñoom ñëpp quoi aussi di sant. benn nit boo nga xam ne tey bi ñuy tàmbali bis bi premier rajab la ñu dem ci moom mu ne bis bi dana baax. seen taxawaay rafet na aussi ci événement bi mais aussi rafet na ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci li nga xam ne mooy région région Diourbel di sant nag aussi waa Daaray Koki ci dë ñii moom ñii moom maanaam daal xam nga yàlla xam na daal gis nga lu mat 27 jours gars yi du ay caaxaan ñu nekk ak ñoom. si benn marathon boo nga xam ne tey li ñuy falan suñu ay kër bëriwul képp kuy suivre li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi gis nga ñu bu baax ni ñuy tourné 27 jours laa la wax ñu àndandoo ko di dem boole ko programme ñoom dañ koy am si bitti boo leen xooleen nelawatuñu vie de famille sax kenn amatu ko kenn xamul lan la lan ngay dund sa ak say ay famille lépp ñu partagé ko ak ñun te du ñu bañ si benn affaire kon bu ñu teewee fii te seedeeluñ leen ko yéen public bi dafay mel na ñun duñu ay góor. dañuy ñaan daal ngeen ñaanal leen seen taxawaay yàgg seen ay mébéb sotti yàlla suñu borom gën a boole seen ay xol aussi quoi. képp ku participer woon si marathon bi ñun sant nañ la ba fa sant yam quoi mais aussi sama xarit ba xaarim ba ñoo ngi leen di sant di gërëm ñëpp gars yi. Baye Sall mën nga jàllale site bi Kossy TV mën nga jàllale. waaw Kossy TV waaw Kossy TV mooy mooy mooy ñëw na Kossy TV vraiment euh, di site boo nga xam daara Kossy ñoo ko moomee quoi aussi di sant ñëpp di leen jox rek dig daje. le 28 le 29 eh mon ami mon frère Bara Seye waaw kontaan nañ waaw man dañuy toog parce que affaire yi dañuy ñëw ñu reer las gaa ñëwaat animé waat ñaari son yoo xam ne tey askan bi yëpp ñoo koy laaj mu pare pour jox ko gars yi bu ko defee nag ñu àndandoo ñun ñëpp gars yi festival bi biste bi dafa seer mais yéen ñëpp ñu ngi leen di seen loxo ngeen ñëw teg ci loxo ngir bawal mën a siggi le 28 le 29 af euh, juin 2019 jaa ngeen jëf